dañ ci ànd ak Serigne Saliou Seck a jàmm pencum ndawi réew ma di assemblée nationale bëri na yoo xam ni fa lañ ku nekk ak la la yitteel l' observateur moom la ko yitteel moo di téeméer ak juróom-benn fukk ak juróomi oto yi nu bàyyee député ya fa nekkoon ak oto yu bees yu nu war a commandeel député yi nu fa fal yees journal Futur Média bi ne ci atum lan 2000 ak léegi député bu fa nekk booy dem dañ lay bàyyee oto ba nga yoroon ndax la nga fay nekk dañuy xool na koy fay député yi oto ci njiitul Kesseur Daouda Dia ak ñetti Diop bu yeewi Omar Youm bu Benno Bokk Yaakaar ak Lamine Thiam bu Wallu ñoo koy lijjanti journal bi ne oto yi ay 4 x gi fi nguur gi fi nekk na ba géer juddu ci seen biir Aminata Touré moom jot boppam ba noppi ndax nag dafa yaakaaroon ne moom la njiitu réew mi di président Macky Sall di fa tek ngir mu nekk présidente assemblée nationale far Macky juuy ko journal bi ne Amadou Ba mi nu tabb mu nekk premier ministre itam neexul benn yoon farandoy Abdoulaye Daouda Diallo moom it nee na assemblée nationale merci day jublu ci li ko Macky Sall dénk yees les écone farandoy balde bu UCS itam mer ba futtu lañ def ndax ne président Macky Sall respecté wul benn yoon seen jiit ndax kon dina ko jox leneen lu ëpp jiitey commission le témoin ne réeroo daal tàmbali naa xeeñ ci biir Benno Bokk Yaakaar ndax bu weesoo ñu fésal seeni xultu waa réew mi bu Idrissa Seck itam ñoo ngi ci daas fanaanal journal bi boole ci samp laaj ne lan moo nar a nekk ëllëgu Idrissa Seck ci biir Benno Bokk Yaakaar ndax nag ñu bëri dañoo jàppoon ni moom moom la ñuy tabb def ko ilimaani jëwriñ di premier ministre gannaaw ba ga ne dinañ gën a dajik seen biir xool lan mooy nekk seen ëllëg enquête yéeni kaay ne booba fekk na Moustapha Niass di gën a defar toogaayam ci biir AFP journal bi ne Niass bàyyeegul mi ngi xool tolluwaay yi ci séddaleem carte yi le témoin ne benn bokk yaakaar daal ñoo ngi ciy bang bang waaye yeewi askan wi itam ñoo ngi ciy bang bang Walf Quotidien moo ko wax journal Front de Terre bi ne ñoom it waxi cumul de mandat fi daan wax moo leen dab tey ñu war koo lijjanti seen biir askan weetu toog di leen xool ba xam nan lan nar a def l'observateur ne askan woo weetu ñoo ngi déglu li fi Macky Sall waxoon ci wàllu luyaas loyaas bi journal Uri 15 angul ko nis bi ne li leen jaaxal moo di ne wàññik loyaas bi bi ko Macky Sall waxeek léegi amul dara luñ ci déggaat nekk xibaar boo xam ni tàbbal na borom kër yi ci njàqare si du quotidien li jaaxal askan wi dëgg kay moo di dund gu cher gi ba tax ñuy woy di ci déglu gouvernement bi nu fi fal yees te Amadou Ba jiite ko ndax nag yéenekaay bi nee na mbooleem gouvernement bu fi mas a jaar ay slogan rekk nga fiy tekk Abdoul Mbaye moom lañ dénkoon yoonu yokkute te dara mu jëwul yokku Aminata Touré ñëw ne accélérer la cadence te dara la mu jëwul accélérer Mohamed Boun Abdallah Dionne ñëw ne un Sénégal pour tous yees tey nag Sud Quotidien nee na Amadou Ba mi nu fal yees moom le combat la wax journal bi ne ndax bii combat dina ca am ndam Matar Ba am na ndam ci liñ ko dénkoon direct news moo ko wax yéenekaay bi ne Matar Ba mi fi nekkoon ministre tàggat yaram pay na waaram ci wàllu tàggat yaram bi ko dénkoon waaye nag gannaaw bi ñu tekkee ndombal tànkam dem na lii tax journal bi bind ci yow xatam ne champion bi quitté na enceinte bi enceinte bi moo di langu politique gi journal L'Info ne lang gi Macky Sall alchimiste la ci képp ku ko ci masa yàqal bu la yàlla natoo ba nga am lan tekk yoon dootoo ko dolli ndax Moustapha Niass dafa nar am lanteek wàllu yoon Vox Populi ne lu ci mën di am daal moom Moustapha Niass ak Baba jaw tudd nañ leen ci gileexóor gu toll ci ñeen fukk ak juróomi milliards ci xaalisu CFA ci njaayum pétrole ci réewum Nigéria loolu yéenekaay bi nee na moo ngi xew ci année 90 année 2022 bi bëri nay grève le quotidien lii quotidien ak journal bés bi le jour xëy dinu xibaar ne bi lee yoon liggéeykati aéroport yiy dimbali roppalaan yi ci ñu wàcc ak ñu naaw ñoo soobu ci grève ñaari fan le quotidien moom jàpp ne bi lépp grève na asamaan si ci aw niir lii quotidien fukk ak juróom-ñetti réew yu nekk ci déndu Afrique la concerné bés bi le jour moom bind ci aw xatam secousse à la Secna lu raw secousse moo am ca hôpital Matlaboul Fawzeyni ba nekk ca Touba Tribune yéenekaay moo ko wax nee na benn étudiante moo fa doon mucc far jaare faa ñàkk bakkanam susu aane étudiante bi ñaar fukki at ak ñett rekk la am da doon am doom far jaare faa ñàkk bakkanam waaye tu tànk ba moo ngay dund ba tey ak njabootam nag jàpp ne waa kër docteur googee dañ koo négliger ba tax ñu ne li nu bëgg moo di yoon leeral ko a leeral xëy na bind ko ci aw xatam journal bi ne Rose Wardini lañ ca tudd ndaw si ci ëpp immeuble bu nekk ci corniche bi la wax ne aw laale na ci ci koppar goo xam ne si jege na ñeenti million ci xaalisu CFA ca mbuur itam lu doy waar moo fa xew xibaar bi moo ngi ci page 3 bu bilépp yéenekaay benn waaye la fa jabaram ñaan baat waa ji dóor ko ba muy bëgg a dee ndax nee na digganteem ak jabaram ñaan baat bokku ci Ndayan Lagos International NCA Assurance